le président de la République waroon ko Koura Mbilgue ni ki démb selon ma jàmbal daal di koy def ni ki tey mu boobaa nag Ousmane Sonko bàyyi nañ ko teg ko li nga xam te moom mooy loxo bàyyi tamit Bassirou Diomaye Faye tegi ko loxo actuellement nag les militants les sympathisants yu Pastef ñoom ñoo ñëw nga xamante ni moom mooy Camp Manuel ànd ak Cheikh Bara Ndiaye ànd ak Serigne Mara ngir daal rek jàppale jël si ki nga xamante ni moom mooy seen leader la ville de Dakar actuellement rythmée d'ambiance ak li nga xamante ni moom mooy ak li nga xamante ni moom mooy de soi ak li nga xamante ni ñu jëlaat ay réaction ci mu ngi noonu ñu ngi gis euh, les gardes corps du président Ousmane Sonko ils sont là loolu nag lan lay wax moom mooy rek on a en tout cas l'impression que ni rek moom mu ngi génn ay gardes corps am ñoom ñoo nekk noonu les gardes corps du président Ousmane Sonko la ñu wéy di gisandi sama gars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 Ousmane Sonko mi ngeen jàpp tëj ko torturé ko ay njabootam lépp tey yàlla c'est fini c'est fini lii yàlla la yàlla la bi feeñ na dañuy korité suba voilà voilà ñu ñu ñu ànd ni ba tey euh, ànd ak sama ñu rek daal di war a wéy gën a dugg euh, ci li nga xamante ni rek moom mooy euh, ci biir a biir ànd bu Serigne Mara Niass ak nga xamante ne moom ma agressé ma après nga euh, ngi wax Mouhamed. dama dama sama téléphone nekk fi ma jox mu ngi fële quoi. Euh, voilà ngi noonu ñu ànd ak euh, bu Serigne Mara Niass ñu ànd ba léegi rek ak euh, caravane bu Bassirou Diomaye Faye ak euh, ki nga xamante ne moom mooy Sonko en ce ñu nekk fi nga xamante ni moom mooy euh, ñu nekk fi nga moom mooy Cap Manuel ci libération bu Ousmane Sonko actuellement nag comme ni ngeen ko gisee rek. voilà comme li ngeen gis bi di wéy rek di continuer caravane bu ki nga xamante ne rek mooy. Euh, Bassirou euh, Diomaye Faye la ñuy wéy di xaarandi euh, par rapport ak la libération Ah, Ousmane Sonko ak bu nga xam ne moom mooy Bassirou Diomaye Faye actuellement 23h moins de quelques minutes Ousmane Sonko war a génne Cap Manuel dëgmal fi nga xamante ni moom mooy Cité Keur Gorgui comme ni ñu ko jëlee woon Cité Keur Gorgui andi ko fi nga xamante ni moom mooy Cap Manuel mu defoon grève de la faim eh, ci fan yu bëree bëri lu romb eh, presque mën naa ne eh, trente quelques jours moom Ousmane Sonko ci rek daal di li nga xamante ni xamante ni moom mooy mars atam 2024 ñu war a dëgmal ay élection présidentielle ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru mars 2024 di wéy di bind kene Ousmane Sonko en cette nuit day jotaat li nga xamante ni moom mooy seen liberté euh, politique et civile daal di mën amaat li nga xamante ni moom mooy ab casier judiciaire bu verte actuellement nag mën naa ne toute la jeunesse sénégalaise en miniature toute la population sénégalaise ñoom ñoo nekk devant le Cap Manuel ngir rek war a ak ki nga xamante ni moom mooy seen leader gis ngeen ki ngeen di gis ni moom mooy kenn ci garde yu Ousmane Sonko yi kon lu ñu mën a jàpp rek moom mooy oto bu Ousmane moom mooy dugg fi nga xamante ni moom mooy ci biir euh, Cap Manuel ngir rek daal di jël euh, mu daal di jël ki nga xamante ni moom mooy euh, Ousmane euh, Sonko actuellement kon lu ñu jàpp moom mooy Sonko jóge na fi nga xamante ni moom mooy euh, chambre biñ ko téewoon foofale en détention provisoire moom ak Bassirou Diomaye Faye actuellement nag dafa nekk ci biir li nga xamante ni nag voilà ñu ji ma jël baal ma ma jël sëñ Mara voilà mu ngi noonu. dem nga lépp may ma may ma may naara li sedd na xol si naara dëgg yàlla man moom xaw ma dara lu may wax wóor na yàlla billaahi si naara da mel ni yaa ngi bëgg a tuub xéwal lii doy na xel sànq yaa ngi xaw di junj ka ne Ousmane Sonko mu ngi si diggante góor gi wala mu ngi Cap Manuel mu mel na nga xaman lu nu mel ah, man kay ñu jégal la ko ñu jégal la ko euh, voilà euh, laay déngali wax euh, mënul wax nañ ko ko jégal mais dafa mel ni sànq si naara xawoon na gis lu nu mel voilà ñu dina xoolaat ba tey sëñ naara mu ngi tuuri xewal sëñ naara mu ngi tóoli xewal comme ni ngeen ko gisee waaw eh, eh sëñ Mara mu ngi tuuri xewal comme ni ngeen ko gisee eh lay ñu def grand patriote bii nii eh, kii la ñu bokk Sonko bi nga yëgee bi nga yëgee mbir mi ban réaction nga am. ah am mbégte rek am contenté suñu président moo génn suñu lépp daal instant yi kay xool dafa fees amuñu ñuy wax am mbégte rek. lan ngeen lan ngeen par rapport ak campagne bi toll Ousmane Sonko sur le terrain ak. non instant yi bu Sonko ñëwee Ousmane Sonko ñëwee macha bu ñun mooy loolu jarul sax ñu dem élection lañ jël Ousmane Sonko rek teg ci palais mu jeex pétri de soi à ce moment du mën a wax ñu wéy rek di toppandi ba léegi xamante ni moom mooy boobale caravane ñu koy waxaat rek bi ngeen yégee Ousmane Sonko dañ ko war a teggil mbégte rek ñun ñii ñëpp ay taximan lan suñu caabi la jël ku sell ki ko ba cité kër góor gi le 24 mars ci kàttanu suñ borom jomaay balaa midi gañe réew mi ñu am ñaari président dugal leen biir pare ñun rek ñoo fi nar am ñaari président ku carte yi ñu woteel ko massiquement mu gagné dans premier tour. loolu rek la soxla. Oh, voilà laay ah, laay yi nga xam ne ñooy andi ko président Ousmane Sonko dèjà agsi nañu yel moor maa ngi ki nga xamante ni moom mooy limousine euh, nekk kenn ci garde corps yu Ousmane Sonko li ngeen gis ni nag moom mooy oto yi nga xamante ni rek moom mooy oto yu Ousmane Sonko ñoom ñoo. ñëw rek ginnaaw bu ñu jotee ordre que ne Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Faye daan nañuy retrouver seen ay droit niki tey ñu daal di rek laay di ma wàcc di ma ba ci kanam kanam bu ko defee rek ñu daal di ji ma xool nu ñu àndee ak mbir mi gën a jege fële en tout cas fii ci buntu euh, Cap Manuel boo fi sànnee mbattu mu tëj Ousmane Sonko ay militant ak ay sympathisants ñëpp ñoom ñoo fi rek daal di daje ba tey rek ci li ngeen di gisandi ñu wéy rek di nekk nag yéen voilà gis ngeen ñu gën a rek daal di avancé waat fële euh, ji ma xool Euh, ba tey euh, nu ñu euh, gën a jege ñu ji ba tey nu ñu. ma laaj Sénégalais yi seen ay réaction par rapport ak li nga xamante ni moom moo ni mel voilà ba tey oto oto bu bu Ousmane Sonko moo ngi noonu oto bu Ousmane bi jël si Ousmane Sonko moo ngi noonu oto bi jël si Ousmane Sonko moom moo nekk noonu oto bi jël si Ousmane Sonko moom moo nekk noonu. Euh, ces garde corps ñoom ñoo rek ndaw euh, di euh, génn li nga xamante ni moom mooy yoon bi pour dem li ñu gis moom mooy Ousmane Sonko na voilà gis nga ki nga xamante ni moom mooy garde corps yi Ousmane yi ñoom ñoo nekk noonu oto bi ngeen di am ni oto ah, voilà du wax lay wax li ngeen gis rek moom mooy voilà li ñu gis ni nag moom mooy actuellement. Ousmane Sonko moo war a ñibbi nga xamante moom mooy euh, ngeen jàkkaar lool noonu ak Bassirou Diomaye Faye euh, moom moo nekk euh, en tout cas moom. Euh, dafay anniversaire nag Ousmane Sonko pare na oto bi xaar mu jël si ko ñu nar a def en caravane. dafa mel ni euh, si euh, ki nga xam ne moo jël président Ousmane Sonko ngeen ko fi nga xam ne mooy ci diwaanu Feeling Dakar TV chaîne de leader chaîne de grand événement Dakar. voilà laay mu ngi noonu ni ko waxee rek benn mu nekk mbir boo xamante ni actuellement ni ñu waxee rek taarixu histoire taarixu politique bu Sénégal dafay wéy di parce que gis nga li ko lay waxee mooy Ford bu noir euh, pick-up moom mi nga xamante ni rek ci lañ jàppe woon Ousmane oto bi nga xamante ni ci la te ñu tojoon lii ay veeram moom Ousmane Sonko yóbbu ko fi nga xamante ni moom mooy këram ginnaaw rek biñ ko convoqué woon sur l'affaire Mame Mbaye Niang tey jii nag oto boobu moom moo ñëwaat devant le Cap Manuel ngir jël si waat encore